maa de l'enceinte bon bilan euh, vraiment mon que Dieu Dieu me mais bon on serait mieux aller si vraiment on avait attendu quand même euh, bon la délibération du BFM pour euh, vraiment faire un, bilan exhaustif quoi un bilan général mais déjà on peut faire un bilan peut-être d'étape hein, d'accord donc sous les, directives hein, de nos autorités académiques bon c'est quoi chaque année cette année même on nous avait dit que nous devrions faire euh, un contrat de performance dans lequel nous devrions fixer la barre de réussite au BFM à plus de 70%. Lolo moo c'est suñu objectif ren daaw amoon 66 ren bëggoon a plus de 70 bon ci Bir loolu nous ñun lu ñu war euh, def nañ ko sur le plan pédagogique madame xool régularité des enseignements assiduité du personnel donc euh, la discipline des élèves ñu jéem xol xool ñu leen di euh, ñaax ba vraiment ñu nekk ci lolu pour ñu am objectif bobu bon lolu tamit def nañ ko. voilà lolu dal la mëna wax euh, ci école bi mu des nak ni école bi machallah ñepp xam nañu école bu yàgg la am na ñuy wax ni sax depuis temps colonial d'accord mais bo xolé vétusté locaux yi ak yoyu lu ñu mëna ñaax xana di ñaan moy vraiment ñu xoolaat ñom milieu bi ak encore autorité pour que l'école bi ñu gën donc sur le plan infrastructurel ay locaux suffisants parce que ñun avons 9 places pédagogiques contre 9 places physiques alors il y a maintenant euh, un espace manam yatuna école bi mais locaux yi ñoo ñoo insuffisants euh, di remercier ici tamit euh, les mu amical ah élèves yi fi jaar di wuyo école El Hadj def nañ ci lu ñu mën a ñoom lu ñu mën def nañ ko ci école bi xoolal euh, toilettes yi macha allah ak yenn réflexion yi ñu ngi ci si noonu kay lu ñu leen di ñaar rek mooy xam naa ni euh, lu neex du doy maanaam lu ñu yokk yokk rek parce que école bi ba léegi des na di remercier tamit euh, autorité maire bi moom itam def na vraiment ci école bi lu mu mën moom ci amicale yi la bokk mi ngi wax ni ci école bi la jàngee pavé yi ngay gis ak yooyu yëpp moom la. Euh, vraiment école bi quand même def naa ni lolou yop su amé conditions yi bu amé ñun quand même suñu détermination ci lu nu nguur gi sant liggéey détermination bobu dañ koy matal sëkk mu dess ni nak détermination bi mënul dem té andul ak milieu milieu bi moo koy détermination bi mëna a taxaw ñu am résultat yi ñu bëgg lool dal doon ah, voilà niveau bi on travaille sur le niveau hein. euh, le profil euh, des élèves euh, il est bas hein. bon ça c'est une remarque générale et je pense même ça va au-delà du Sénégal hein. je crois que c'est c'est une génération c'est la génération actuelle les enfants ne sont plus donc consacrés donc aux études comme il le faut ci wal lecture bi xalé yi liiratuñu sooxee ci yu bare ñun nak ñu ngi siy def ay jéego té di démalé conscience bobu du duñu wara a dindi lolu conscience boobu il faut que ñu démé ci moy suñu credo côté chaque jour dal manam buñu yéwo moy élève yi sen niveau dañ ko wara yok waaw lolu dal moy suñu ci lolu lu ñuy yëngatu ba tax na ba niveau bi niveau bi machallah comme na nga ko waxee loolu c'est une réalité mais le problème c'est essayer de remédier à ça et nous sommes dans euh, donc cette dynamique là voilà voilà la quoi donc euh, bilan je pense que euh, nañ ko wax maîtrise ndax euh, année scolaire franchement def nañu luñ luñ ni donc sur le plan éducatif comme peu souvent buy dox day dox sur le plan éducatif jot nañu def cours de renforcement pour les candidats du bac et du BFM euh, pour les mais aussi euh, toujours sur le plan éducatif je pense que c'est dans les perspectives le bilan mais sur le plan social parce que ñi situation une conditions difficile na ça que pour dans ces conditions après nous avons fait euh, répertorier xalé yi nga xamné vraiment ñoo ñuy jundu dans des conditions très difficiles ñu jëm leen xol nu ñeen di jappalé surtout sur le plan social euh, am na nga xamné defal dañ leen di defal abonnement wu ndékki plus de 2 mois plus de 3 mois voilà en fonction de nos moyens ñu jappalé leen ci lolu ñi nga xamné dañuy am ay orphelin lañu wala ay orpheline ñu xol nu ñeen di gungé ku am dëj aussi après dalay day dem jaale la bu ko yëgee day dem jaale la def geste wane aussi suñu cofeel ci euh, suñu digënté xalé yi voilà donc euh, sur le plan infrastructurel bu ñu ñëwee trois classes yi lañu ñu régler parce que mbir bir bokay def da ngay def par étape trois classes yi mo non suñu priorité parce que dër bi dafa xamone am problème ñu défar ko bu mu ñu réfectionner le bureau de l'APE ba nga xamné de ce fait luy lepp loy liggéey rek di nga mëna am euh, fu ngay tok di nga mëna am aussi tamet fo koy waxtané te di nga mëna am fo koy tënkee donc loolu sur le plan infrastructurel li nga xam ne AP e war na pas def mais AP e aussi tamit jot na euh, gardien bi fi nekkoon jot ko rajouter ci salaire une modeste somme pour jàppale ko aussi pour ñaax ko ndax wane na njàmbaarte am donc AP e aussi dam jot na si dugal loxoom bu baax a baax donc euh, en définitive lola mon mën a jàpp si violence su fekkee am naa li ma fàtte xam sama ñoom papa dinañ ma ko fàttali mais daal lola la ñu mën a ni daal jot nañ ko fi defagum te incha allahu rabbi perspective yi ñoo ëpp daal ñoo ëpp lu mooy. xam nga aussi on est dans une situation un peu particulière avec la pandémie mooy waral souvent euh, parfois da ngay dem bay waaj a def dara affaire yi am empêchement avec la flambée des cas donc loolu moo ñu gën a euh, gàllankoor ba nga xam ne euh, parfois yenn affaires yi mënuñu ko def mais booy xool par exemple classes yi war nañ leen mën euh, dali, qui euh, est bi comment dire toiture ko donc euh, boy plus de six classes voilà non 4-5 classes je pense bo trois yi bi bi ak complètement ak li nga aussi peinture def def peinture classe changer image école bi ba nga école bi de l'extérieur parce que école bi dafa ci environnement important je pense que sur le plan environnemental école bi gis nga nu bëriwul école yu melni donc war nañu mëna am luñu exploiter malheureusement nak euh, euh inscription yi ak yoyu ak les partenaires dañoo yéex ñew mais ñu ngi sant yalla bon ñu affaire yaangi ñew té inshallah rabbi déjà on a eu à à avoir des des promesses hein ni que dinañu mëna dinañu jappalé euh ci côté bobu ci walu wowo quoi ah bête na ma trop vraiment franchement bête na ma sax fu mu nekk nii moom wax deug yalla mënatuma sax wax donc euh, ma ngi ma ngi len di gërëm euh, di len remercier di remercier euh, les enseignants di remercier les surveillants di remercier les élèves di remercier les parents association parents d'élèves de l'école si Malik, si Mansour Mansour Sy Malick euh, bon ñoo ñëpp maa ngi leen di remercier quoi di euh, def tamit mes sincères remerciements à monsieur le principal euh, parce que ñoom tamit moom bi ma ñëwee moom dalal waaw mais nak, remerciement bi yëpp maa ngi koy ñëkkee à suñu maire euh, monsieur le maire Cheikh Ahmadou Bamba Fall waaw maa ngi koy def mais sincèrement remercier parce que su ma ñëwee fii ci école bi rek grâce à moom la en tant que doomu Medina quoi parce que man Nafissatou Thiam tey jii mi ñu honoré nii je suis très fier et je suis très content et je suis très ému quoi franchement ndax bett na ma quoi bett na ma vraiment comprendre nga donc mais euh, kii d'honneur bi lépp diplôme beeg lépp quoi maa ngi koy delloo di ko jox suñu maire Cheikh Ahmadou Bamba faal parce que le maire des maires vraiment seetaanul kenn liggéey moo ko tax a jóg moo tax mu jël débauché ma fii ma tam bi ñëwee ma wane résultat ba ñu mun ma honoré lii kon kontaan naa maa ngi jël gërëm bi yëpp di ko delloo di ko ñaanal li mu mun tey yal na ko yàlla gën a yombalal ah, li mu mun tey yal na ko mun déwén te tamit maa ngi naan monsieur le maire Bamba Fall ñun ñëpp kontaan nañu ci yow quoi di